رمضان رمضان رمضان awuzu billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim suñu mbokk téléspectateur yu TFM religion ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru koor gu tedd gi macha allah weeru koor gi commencé nañ ko ci bisimilah rahmaani rahim ndar ko yeggale suba incha allah ci kàttanu yàlla suñu borom alhamdulilah rabil alamin suba di doon bis bu mag di Eid Mubarak di korite incha allah rabbi tey daañu waxtaane ci lu bëri. ànd seeg toujours ak Imam Cheikh Touré ah ak sunu invité bi nga xam ne mu ngi ni toog ànd seeg euh, Cheikh Imam Touré ci weeru koor gi yëpp mu gungeen ñu diñu defal tafsir yu neex yooyu macha allah ak laajte yi nga xam ni moom la téléspectateurs yi di laajte ci weeru koor gi nga xam ni moom lu leen ci ump moom lañ leen def tey jii nag daañu waxtaanee ci korité julli korité nu ñuy balonte ak nu ñuy muuraayu korité ak yëpp incha allah rabbi ànd seeg euh, Cheikh Imane Touré Imane maa ngi lay nuyu waaleykum salaam wa rahmatullah soxna Ajara maa ngi lay fay. di la baalu àq bu baax ci weeru koor gi. Mm-hmm, yal nañu yàlla boole baal yal nañu yàlla nangul suñu koor yëpp. amiin yaa rabbi alamin suba ñu ngi jëm si bis bu rëy macha allah. Mm-hmm. waaw jërëjëf ñu ngi nuyu. Mm-hmm. mbokki téléspectateur yëpp. di wax rek wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad ibn abdullah. commencé woon nañ tafsir bi ci koor gi yëpp ñu ci doon ànd yow ci laaj yu am solo yi. tey nag. tëj nañ ko ndax suba la ñuy jëm ci bis bu màgg boobu di korite di eedul mubaarak di eedul fitir maanaam dafa am ci lislaam ñaari feet am na lu ñuy tuddee eedul fitir mooy julli korite ak lu ñuy tuddee eedul adaa muy julli tabaski lislaam boo jàngee sax ci histoire dañ lay wax ne lislaam ñetti feet la mas sa am bu njëkk bi mooy feetu semaine bi muy àjjuma li muy jër li muy tekki mooy yaa ngi doon jaamu yàlla ci semaine bi yépp am na lu la yàlla santoon nga koy def mm-hmm. ba semaine bi jeexee mu ne tey may naa la benn fan nga feetu ko est-ce que xam nga ne yàlla ci juróom benn fan la bind àddina xam nga loolu mm-hmm. àddina bi li fi ne yépp yàlla ci juróom fan la ko bind xam nga ne yàlla bu muy bind àddina mu ngi ko commencé ci bisu dimaas la commencé bind addina mm-hmm. dimanche altine talaata àllarba alxames ajjuma ci waxtu mujj wa lañ bind ñun ñu doomu aadama ci àjjuma la ñuy bind. Mm-hmm. samedi bindu dara. moo tax sax nasaraan yi ñoom ñu ne gannaaw yàlla samedi bindu dara ñoom dañuy jël bis boobu daf ko mu nekk seen feet. Mm-hmm. kon jullit am na feetu àjjuma muy feetu semaine bi ñu fay def benn discours. feet bii ñu nekk nag di feetu korite gii yàlla dafa am jàmm yàlla gum ñu santoon mu ne dama bugg weer ci bëccëg bi bu leen lekk bu leen naan bu leen joteeg seen soxna. bu leen fa wax waxi mbóosóor bu leen fa jëf-jëfi mbóosóor ñu def ko bañ ko defee ba weer yu jeex nag yàlla di ñu teral dañu tey nag dama bëgg ngeen feetu mm-hmm. bu ko defee nag feet googu dafa am nuñ koy defee ci chariatul islamiya macha allah nuñ koy defee xam naa ma jox la kàddu bi bu ko defee nga dugal sa laaj bi ñu ñëw ci nu ñuy defee feetul korite rek macha allah yéen a déggandoo mu ngi mm-hmm. noon mm-hmm. tey ji daañu waxtaan ci korité mm-hmm. waxtaan ci nan la ñuy defee korité nuñ koy jullee ak balu àq beeg yépp macha allah. léegi imaan dañuy ànd ak yow rek ci. nañ la ñuy defee korité ndax nit ñi bëri ñu ngi mhm. xëy di di di korité mhm. ren soit ñu rend xar mhm. baa ginaar ah daal di dem julli jumaa yooyu yëpp macha allah rafet na mais yàlla subhaanahu wa taala xëy na am na nu ci wax loo xam ne war nga ko fàttaliku suñu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun depuis weeru koor gi ba tey ji incha allah jërëjëf soxna Ajara sax xam naa balaa ñu ñëw ci korité am na tomb bu am solo boo xam ne bu koor gi di jeex nga ko war a joxe muy muy muy koor olof yi di wax muuram koor ñu koy tuddee ci arab sakaatul fitri muy muuram koor yonentu dafay wax ne képp ko or ba sa koor gi di jeex na nga jël lu mat ñaari kilo am na ñuy wax ñaari kilo liibar nga jox ko nit pour ci bisu korite bi mu am lu mën a añee boo demee ci fuqaaw yi dañoo wax ne li gën a not ci dundu dëkk ba bu dee na dëkk ba ceeb la ñuy dundee wala bu dee na dëkk ba ñoom dugub la ñuy dundee bu doone dëkk ba mboq la ñuy dundee ci misaal dëkk bu ne rek la ñuy gën a dundee mm-hmm. nga jël ci lu mel noonu ñaari kilo ak liibar nga jox ko nit loolu mooy mudd koor mm-hmm. kañ lañ koy joxe buñ ne suba la korite gi boo demee ci lawal dafay wax ne waal bi awali laylatin aw bi fajarin xilaafun am na ñu ne bu weer bi feeñee rek foofu lay war nga joxe ko bisu korite bi boo xëyee nag maanaam foofu moom fekk balaa ñuy julli ji boo ko amee force la boo ko fa joxewu da am bàkkaar mhm. loolu mooy mudd koor bu dee ne amoo ceeb boo joxe mën nga koo xayma ci xaalis 1000 francs wala 1500 nga xayma ko mhm. nga joxe ko ku ku ku ñàkk bu ko defee nag ki koy joxe yaa koy joxeel sa bopp mhm. boo amee soxna yaa koy joxeel yaa koy joxeel say doom itam Hmm. maanaam sa doom yi liñ bëri bëri ku ne yaa ko ko war a joxeel boo demee ci lawal mu ngi koy jàngale kon muddu koor nañ ci bàyyi xel di ko joxe ñu ngi nii suba la ñuy julli ku ne nag gaaw dem ci guddi gi joxe ko wala boo xëyee suba balaa ñuy julli nga joxe ko bu dee nag amoo boo demee sax ci lawal mu ne boo yaakaaroon ne boo lebee joxe ko danga am loo ko fay daggal na nga leb joxe ko boo demee xalil mu ngi koy jàngale hmm. bu dee nag amoo loolu amoo ko ndax sunna la sunna boo xam ne yonentu moo ko sunnaal bu ko defee sa laaju ñaareel bi ni ñuy jullee korite mhm. kon muddu koor loolu lañ ci bëggoon a wax mhm. ma Maalik nag nanguwul ñu joxe ko ci lu du ñam eh, yeneen masa bi nag wax nañ ne mën nañ koo joxe ci xaalis ndax ñu ne xaalis moom lépp lu ñam man rek mën na koo joxe mhm. kon boo ko joxee ci xaalis dina baax julli korite ni ñu koy defee nii la boo xëyee ci bis bi bu yoor maanaam bu jant bi génnee na nga sangu comme ni ñuy sangoo janaa ba boo sangoo nga sol yére yu bees boroom xam-xam yi dañuy wax ne tabaskee korite na bees donte dafa ñuul mhm. ajjuma nag na weex donte beesut sopp nañ nga sol yére bu bees boo ko amee boo solee yére bu bees nga jóg di kabar allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asilan ay cheikha yu bari moo ci ñëw mhm. laa ilaha illa allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu allahu akbar kabila walhamdulilahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asilan ay siqa yu bëri ci kabar mooy ñëw ci mm-hmm. julli suba gi alquran waxoon na ne wala tukabbirullah ala ma hadakum bu ko defee nag kabar yooyu ngay dem di ko wax booy dem boo àggee nga toog bu imaam bi ñëwee cheikh xalil mu ne wa altaqatuhu lil imaami aw li salaati xawlaani mm-hmm. ndax kabar bu imaam bi ñëwee nga koy dagg wala buñ commencé julli gi xalil mu ne am nañ ci soxna si julli korité ñaari ràkk lay nekk ñaari ràkk yi ràkk bu njëkk bi juróom ñaari kabar lay am mm-hmm. mu ngi noonu ràkk bu bu ci topp juróomi kabar ak kabar bi ngay jógee muy juróom benn mm-hmm. lii daal ci tënk mooy julli korité mm-hmm. booy dem sopp nañ yoon wi nga jaaree booy dëpp nga jaaree beneen yoon li muy jëriñ rek mooy ñu ne politique la woon ndax ci jamono yonent bi l'islam amutoon doole boo jaaree yoon bi dëppaat jaar yoon bi ñu ne ah julli ñi dee bëri nañ ñi jaar yoon bi ak ñi jaar yoon bi pour gars yi mën leen a ragal. Mm-hmm. wala ñu ne déedéet boo jaaree yoon bi saraxe booy dëpp nga jaar beneen yoon saraxe. Mm-hmm. wala ñu ne déedéet yoon yi bu nekk suuf boo fa dëggee di jaamu ji yàlla bu yomal xiyaame daf lay seede ne oustaz ndongo mii jaaroon na ci man di jaamu ji yàlla. Mm-hmm. kon jaar ñaari yoon yi loolu lañ ci jubli lii daal mooy julli korite ci tënk. ñu bàyyi la nga continuer. allah mi ngi noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. leer bi wax laajte bi leer na nañu macha allah. Mm-hmm. ndax euh, ñu bëri ñu ngi koy def te xamuñu. lu luñ koy lu lu ko waral. Euh, damay jox rek ab introduction rek ci li nga jot wax léegi nii. ci muuraayu korité bi. murdu ah, bi parce que wax nga léegi léegi nga ni farata la ci ko am. muddu waaw waaw farata la ci ku am. ak ki nga xam ne amul tamit. yàlla subhanahu wa taala ak yërmandeem bëri na lool macha allah. boo lebee mu leer ni ni que mën nga ko fay mhm. dagan na la ci yow mhm. su dul loolu tamit wàcc na la mhm. loolu mooy war a dem macha allah kon nañ ci bàyyi xel bu baax julli korité bi tamit mu ngi noonu ñaari yoon yi nee na ko déggandoo ak imaan lu mu wax léegi booy dëpp booy dem ak bi ngay ñëwaat mën na bu ak sarax yeeg yooyu sopp nañ ci tamit lool macha allah nga sol si yére bu bees macha allah ndax euh, loolu daal imaan moom la yàlla digle kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax mi ngi noonu ñu si plateau bi am nañ sunu gan gi nga xam ne mi ngi nii dañ ko war a dalal ak jàmm incha allah di ko dalal di ko bàyyi mu nuyoo rek bismillahi rahmaani rahim mhm. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaarihi al azim mhm. nu ngi sant yàlla mi nga xam ni moonu boole ci jotaay wi mm-hmm. di ko ñaanal di ñaan mun mën a may nu lépp loo xam ne liggéey nanu ko ci weer wi mm-hmm. ngeen tàmbali woon ko te lépp doon njëriñu diine mm-hmm. ngeen sonnoon ci lool ngir fàttali jaam yàlla yi waaye leeral leen message ak sunu borom subhanahu wa ngir nit ki xam ne alxuraan boo ko jàngee ba pare war nga xam ki la ko yónnee lalal la wax doyul rek ci mën naa ko tari bokk na ci nga xam lan lan la wax. parce que mhm. soo xamul lu lay wax doo mën a xam lu neex yàlla. Mhm. doo mën a xam lu ko naqari. te firi bi yépp mu ngi tënku ci biir yàlla nee na ngeen def. Mhm. yàlla nee na ngeen bàyyi. ñi fi jaaroon te bàyyiwul. lii laa mujjee ak ñoom. ñi fi jaaroon te def samay digal lii laa mujjee ak ñoom. lii laa leen dig ëllëg loolu nag. macha allah imaam am ci taxawaay wu rafet. Mm-hmm. ñu ko ciy sant ci kàddu jullit ñëpp. Mm-hmm. wax dëgg yàlla tafsir wi ñi koy bàyyi xel bari na. Mm-hmm. waaye euh, soxna si yow it ñu ngi lay nuy si la bu baax. ci leeral gi ak jàppale nit ñi. ndax sa teewaay bii dafa mel ni junni nit ñoo toog. ndax saa su nekk rek lu nu bëgg. mu leer yow di nga yëkkati kàddu googu jotal nu ko kon ñëpp it ñu ngi lay sant di la gërëm kon sunu teewaay fii teewaayu sant leen gërëm leen la ànd yéen it ci jotaay wi wettali leen comme ni ngeen ko bëggee waaye ñaanal imaam bu baax a baax a baax ci taxawaay wi mm-hmm. ci lii nga xam ne leeralal nanu ko mm-hmm. te jullit ñu soxla ko lool mm-hmm. te weer wi it mu méngoo ak moom ndax weer wi alxuraan wàcce képp koo xam ne toog na bàyyi yitteem ak soxlaam di la leeralal alxuraan amoo payam mu am ci taxawaay wu am solo ci leeralal nu li nga xamante mooy téere sunu borom subhaanahu wa taala nga dolli ci lu am solo muy nga indi ay laaj mu tontu ka mhm. jotaay bi rek daal di nekk jawaab mhm. saayil mhm. mu daal di nekk loo xam ni laajte la ak tontu yow nga laajal képp ku bëgg jot imaam te mënu kaa jot imaam it di tontu chaque jour loo xam ni day day day wér te day dal xel ci boole masala boo xam ne génne na ko fii te macha allah li nu fekkee it li mu fi waxit loolu rafet na ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di ñaan yàlla yàlla na nu yàlla ma ñu fekkewaat ko déwén. amiin mu ànd ak wér ak xéewal ak sutura gu yaatu. amiin amiin incha allah mi ngi noonu lii mooy diine l'islam yaatu la. Mm-hmm. Ah, ñëpp mën nañ ci ci jàngat lu bari. ndax laajte yi kat macha allah ñëpp a ngi si jàng ku xamul woon di nga xam ku mi ngi noonu lii daal mooy dina lislaam macha allah comme ni ko waxee léegi alxuraan yamul ci jàng rek di ko tari. Mm-hmm. comme que sunu borom subhanahu wa taala moo wax balaa ngeen di ma jaamu xam leen ma d' abord. Mm-hmm. donc ànd ak imaan nga xam ne daf ñuy xamal sunu borom xamul nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunna yi nga xam ne moom la fi bàyyi ndax jullit bu nekk war nga am sa référence ci li ngay basé wu pour mën a pour xam li ngay def te macha allah mi ngi ñuy fàttaliku loolu dañuy des encore. ci laajte yi nga xam ne comme que suba mooy julli bi incha allah. Mm-hmm. dama mbokk mi dafay laaj rek. Mm-hmm. xam nga d'habitude julli des fois mën na tombe ak euh, vendredi. Mm-hmm. aljuma bu korité bi tombe woon ak aljuma. Euh, nan ju boo xëyee dem julli ji. far julli korité. léegi aljuma bi nan nga koy jullee. waaw jërëjëf soxna Ajara boo demee ci borom xam-xam yi imaam Malik dafa wax ne korité bu tasee jullik àjjuma maanaam korite gi du du tax julli àjjuma gi wàcc la mhm. ndax mu ne julli korite sunna la te julli àjjuma farata la te gisuñ ci xam-xam sunna boo xam ne mën naa daane farata mhm. kon dangay dem julli korite bu waxtu jumaa jotee rek nga dem julli jumaa loolu moo nekk ci masa bu Malik am na nag mhm. yeneen boroom xam-xam yoo xam ne wax nañ ci yeneen wax lu bokkut ak li imaam Malik wax waaye gannaaw Afrique wala ci réew mi mag ñi ku mel ne Xaadimu Rasuul ci imaam Maalik la sukkandiku woon. Mhm. ku mel ni maam Alaaji Maalik ku mel ni maam Seydina Limaamu Laay Afrique ñu ci bëri ci Maalik dañuy sukkandiku ci waxam. Mhm. ndax imaam Maalik bu ñu fàttalikoo ne Madinatul Munawwara la nekkoon ci jàkkaay yonent bi moom moo fa daan jiite. Oustaz xam nga ne imaam Maalik ci jamonoom yëpp kenn du tontu masala lu dul moom. Mhm. dañ daan wax ne laa yifta fi madinati wa Maalik fii wax ju siw la ñu ne. kenn du tontu masala ci war a bu dee Malick mu ngi fi. ndax dafa mm-hmm. nekkoon koo xam ne dimension dafa kawe woon ci xam-xam macha allah. taalif na téere bu ñuy tuddee mu watta benn téere boobu la bind ci dundam. Mm-hmm. moom nag borom masaay bi ku ne dafa am kum roy moom. masabam léeg-léeg dafay xaw a tàng moom Seydina Omar Ibnul Xataab la roy ci masab. Mm-hmm. maam borom Touba ku ko bëgg bëggoon la boo demee Baay Ñas ba muy wéy maam borom Touba dafa waxoon ne. xat xaala fi asil majaalu am jaddu xadimu taaha maliki fa laysa yuksibu sawaadul gismi balaadatul fata wa suul fahmi mu ne masala bi daal ki nga xam ne bëkk néegu yonent bi la di xaadimu rasul koo xam ne dafa bokk ci masa bu maalik maanaam pour wax la ne magi Sénégal yépp dañ ko bëggoon boo demee mun a Munawara ca Baqiya lañ ko sul foofu noonu am na sax ñuy dem di màkk di ko kii pour siyaara ko ngir ni meloon ci ragal yàlla gis nga kooku soxna Haajara imam Malik du thème bi waaye dama laa danga ma laaj ma tontu la waxal la. Mhm. ki ko wax mooy kan. imaam Malik bu jógaan bay jàngale dafay jóg jàpp julli ñaari ràkk. Mhm. loolu jàngalekat yu bari dañ koy def. bu toogee dafay solu solu boo xam ne yow miy jàng ci moom dana am xëyba goo xam ne sax doo ko ñemee xool. Mhm. ngir weg gi wex xam-xam. mas nuñ koo laaj masala lu dul ne dafay jàpp ba pare door lay tontu. wax nañ ne itam Madinatul Munawwara masu fay doxee dàll ndax da daa wax ne dëkk bu yonent dëkk man Malick rus naa di fi doxee dàll mhm. wax nañ itam dundam ba dundam bi jeex moom bët bu sedd daan gént di gis yonent Ibnu Mubaarak mu ne benn bis dafa toog Imaam Malick di jàngale fekk xam-xam comme mañ ñi rek ni ñuy def boo demee Layane loolu nga fay fekk mhm. boo demee Touba Ndiassane dina Baye mooy toog nii nit ñi wër la Malick ba mu commencé di jàngale benn jiit ñëw fett ko mu kii mu ne Ibnu Mubarak mu ne gis na kanam gi sansa xam na ne am na lu ko jot mm-hmm. mu daf ko ko lu bëri bam mu paree Malick ne ko day jiit matt na ma fi ma toog lu mat fukki yoon a juróom benn mm-hmm. waaye buuse wul ngir moom mu ne moom buy jàngale hadiis bi dara mën koo dagg ba léegi sax am na ci kilifa yu bëri kilifa diine yu bëri damay gis ne jàngalekat yu mag yi buñ toogee bay joxe dars mm-hmm. loo màgg-màgg boo ñëwee da ngay toog bañ pare waaye duñ dagg li ñuy wax kon daal loolu la ci Maalik wax ki ma la wax noonu mm-hmm. moo jëlee ci hadiis bi mu ne mm-hmm. bu julli korite ak kii ajjuma tasee da ngay julli korite gi bu ajjuma demee jotee nga dem ndax julli ajjuma farata la mm-hmm. korite moom sunna la loolu moo ne ci masa bu Maalik am na yeneen borom xam-xam yoo xam ne dañoo jàpp ne korite tabaski moom du sunna waaye farata la yaa ngi dégg loolu laa lay tontu nga jox sëñ bi macha allah dañuy jox kàddu gi rek moom it mu sànni si mm. waxtaan si mm. waaw dañuy rafetlu leeral bi. Mhm. soxna jëf ci mhm. laaj bi macha allah. imaam jërëjëf ci tont bi. Mhm. leer na li mu wax it fàttaliwaat nit ñi. xam nga nit ñi moom boo nee leen mu ngi jóge ci diw di jóge ci diw. day jot les fois nga leeral leen mooy kan. parce que it mag ñi ni mu ko waxee amoon nañ fulla ba nga xam ni. ma sëb imaam Malik bu fekkul woon ni doyu leen woon. duñ ci duñ ci soobu te duñ ko def wéttal mm-hmm. ci seen yoon bi mottale kooko seenu ko jaamu yàlla ak képp ku jokk ci ñoom mm-hmm. ni mu waxee ci imam Malik tamit noonu rek la ko téere waxee mm-hmm. dana wax ni finaan musuma fi naan madinatul munawwara benn guddi lu du rasulullahi daf ma feeñ sallallahu alayhi wa sallam loolu nag martaba gënu ko rëy loolu itamit day tekki rek ni kon kooku sa ñu ta waxal yeneent bi lu yonent bi waxul sañu ta it nag dëggal loo xamante ni yonent bi dëggalu ko woon loolu nekk loo xamante ni lu lu lu am solo la ci nit ñi waaye tamit comme ni mu ko waxee rek ñu ni des fois dañuy juwaat la farata ak sunna mm-hmm. te loolu jar di ràññee la mm-hmm. te xàmmee farata xàmmee sunna mhm. noonu ngay gisee kazalika bu tabaski jotee wala korité mhm. day gis ku xëy du julli suba mhm. dem julli ji korité wala tabaski moom day fàtte ni sax julli suba farata la ci moom moom danaan maa ngi waaj gaawantu rek sol yéreem rek dem pourtant julliwul suba mais moom mu ngi xooli ji li nga xam ne mooy julli tabaski bi wala korité bi te fàtte na ni moom bàyyi na farata mu ngay daw sa sunna te loolu ki ki ki nga xam ne moo ko jàngalool di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ni moo leeral yoon wi nga xam ni moo yoonu islaam mhm. yàlla gërëm ko ci wax xamal ko ni ko bis ni tey it matal naa lépp loo xamante ni nii mhm. wàcce woon naa ko ci yow mhm. moo waral comme ni ko imaam doon ànd ñun ci koor gi kenn gisul mu ni ñaari atte wàcce na wala nan xool atte bu bees bi dafa gis ni la yàlla atte woon démb ca jamono yonent bi loolu rek la alxuraan continuer di ko wàcce amul jamono juñ koy changé wala ñu koy soppi mm-hmm. te loolu lu jullit ñi war di bàyyi xel la te xam ni li mu ëmb ci ay attek lépp lépp lépp lépp dafa mm-hmm. jéggi dayoo mm-hmm. ni mu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dañu ko lu la laaj tontul dañuy ñëw ni ko ah wàllum rey mu ni nàngam mooy atti wàllum julli mu ni nàngam wàllum koor mu ni nàngam wàllu azaka ba ci muddum koor ni mu ko waxee mm-hmm. muy zakatul fitri comme ni mu ko leerale léegi ci ni ñu ko war a génnee balaa ñuy julleek yooyu mm-hmm. yooyu yëpp bu ñëwee yont bi day waaye ba mu egsee ci ruu rek mm-hmm. danaka nag loolu du say mbir sama mbir la waaye kon nag te bu nu musaana soxla yenn information yi gis nga buñ ca sonnee ba sonn ca lu mel ni am ma yatasaaluun ani nabail azim loolu na nga xam ne day am uute chaque jour nga gis ni nag dafa am taxawaay bu ci yàlla di am donte yonent bi ñoom leen ko nangu wala ñu bañ ko. Mhm. yooyu nag dafa am solo nit ñi. di bàyyi xel képp koo xam ni mu ngi toog ak ñoom di leen ko fàttali. Mhm. kon nag lii mu leer lu am solo la. ci mhm. diggante farata ak sunna. ndax nit ñi il faut ñu xam ni farata. yàlla sunu borom subhanahu wa taala sunna moom la doolee la yonentam bi. mottalee ko li nga xam ne mooy risaalaam. mu koy jàngal. ñoom ñii nag di ay jëmma yu kenn mënul fay ndax wa yasalul ulama mhm. loolu la ñu lax dari wax mhm. ñi am xam-xam da ngeen leen di laaj mhm. bu ko defee ñoom bul leen tontu ngeen xam fan ngeen di teg seen tànk te bu nu seetloo tafsir yi ba mu tàmbalee ba fii ñu koy tëje tey mosuñu gis euh, masala boo indi mu ni sama xalaat chaque jours rek mu ngi lay delloo si waat ci li nga xam ne mooy tegtal yi te loolu moo moo mooy sunu tegtal mooy sunu wéeruwaay waaye gis nga chaque jour rek loo ko laaj ci banu tàmbalee tafsir ba fii ñu koy tëje tey mm-hmm. saa yoo ko laajee masala rek da ngay gis ni dala naan imaamal wala mu la yonente wala mu la sunu borom subhanahu wa taala mm-hmm. nee xam nga kon loolu mu ngi lay xamal ni la man mi wax waxuma wax ji mm-hmm. ku ci jàpp it waxuma ko ku ciy mere it waxuma ko li may wax mooy li yàlla wax ak li nga xam ne moom la yonent bi wax ñun li nu ci war mooy ñu déglu ko te jéem a xam ni li mu nuy leeral sunu njariñ la te kenn ku ci nekk li nga laaj ni ñi ko soxla mm-hmm. yow sax xamoo leen mm-hmm. gis nga ñi ko soxla ñëpp ñi nga laajal laaj bi yow xamoo leen sax mm-hmm. junni junni yi nit ñoo ngi toog rek topp masala boobu loolu ubboon seen bopp su bis bi tombeek ajjuma nu may def jumaa ji ak ni mu xate amaana ma julli ji ñëw damay sonn surtout bu dee tabaski nii bu ñuy nekk ci xarit nangam dañuy taayal ne ak ah, comme julli ji woon naa tabaski sànk rek jaru may dem jumaa te fekk mbir mi du foofu comme ni mu ko leerale mm-hmm. moo tax lu am solo la nit ki jullit da ngay ràññee mooy dañ war a xam sunu diine mm-hmm. te lii firiwul lu dul ñu xam lan mooy sunu diine mm-hmm. parce que sa diine boo ko xamee di nga xam noo koy dundee mais boo ko xamalee moom doo xam noo koy noo koy dunde moo tax olof danaan am ka te xamoo ko ñàkk ka dëkk gën waaw kon bu nu amee lu tooy ni alxuraan te na lan mooy alxuraan kon ñu ñàkkoon alxuraan da koy gën parce que dina tax sax du la lor wala doo am dara loo xam ne di nga dina am daan buy jóge ci loolu ñëw ci yow. Mm-hmm. kon nag sunu amee koo xam ni daf ñuy leeralal loolu yow it nga ànd ak moom ci liggéey bi di laajal ñëpp. moom it mm-hmm. muy tontu tontu yoo xamante ni nii du tontu boppam. Mm-hmm. tontu la woo xamante ni moo wér te moo nekk ci téere yi te képp ku ko dégg boo ko jëfee. loolu day am solo. macha allah kon loolu rek lañ ciy dolli. Mm-hmm. ñoom lañ fi nekkal suñu mm-hmm. téléspectateurs yi ndax comme nu ma ko waxee rek ci début bi dina lislaam dafa yaatu dañ ko dañ ko war a di yaatal ndax nit ñi xëy na danga xalaat dara nga ne war naa ko def wala waruma ko def donc dafa war a am ñi nga xam ne ñoo fa war a toog pour fàttaliku ak di leeral nit ñi li ñu war a def ak lu ñu warul def ndax balaa ngay maye day fekk nga mëtle mm-hmm. ndax nit mi ngi def uh, sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ni am na loo xam ne farata la te defoo ko comme ni ngeen ko waxee léegi léegi dem di julli ji korité fekk julli goo suba teel bàyyi nga farata bi dem defi julli goo suba teel donc ñu bëri xamuñu ko tey jii leer na ci yéen mbokku téléspectateurs yi kon lii rek mooy sunu toogaay fii nga xam ne mooy euh, waxtaanu koor tey jii nga xam ne suba incha allah mooy korité ci kàttanu yàlla sunoom di Eid Mubarak kon euh, lii rek nii rek lay demee imaam damay joxaat laajte waat yi rek hmm. ndax tey comme korité bi mooy actualité macha allah hmm. ndax nit ñi ñu ngi xëy di ballonte ak hmm. naan baal ma àq baal naa la. Hmm. léegi baalu àq boobu am na ñu koy def ndax loolu farata la wala sunna yonent bi la sallallahu alayhi wa teg ci. am na ñuy baalu àq tooñ la. si hmm. wala baalu àq bi du loo loo xam ni si xol la jóge hmm. comprendre nga. donc loolu noonu dinga ñu leeral rek ci baaloonte àq boobu nga xam ni moom lañ nit ñi di def si bisu julli. ndax si bisu julli rek la war a doon wala chaque jour la jaam jullit ak moromam di baalante àq. waaw jërëjëf soxna Hajara xam nga lislaam dafay fekkoon aada tey aada bu njëkk dafa tooñaa ngi amoon na ci jamono jaahiliya yi ba lislaam ñëwagut mhm. ngi amoon na léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wa xeetam bi yàlla jagleel ko loo xam ne saas noo nga xeet yi jiitoon yépp boo leen tooñee fekk waxuñ la baal ma ci tooñ bi ma la tooñoon sàngam rek baal ba du mën a wér mhm. foog nga tudd tooñ ba xeetu yonent bi nag yàlla dafa am yu mu leen jagleel yu bari lu mel ni tiim benn xeet amu ko xeetu yonent bi moo ko amoon lu mel ni suuf soo dem julli mhm. xeetu yonent bi rek ko am xam nga bi léegi fi lañ jullee tusubaar mhm. mu ngi noonu lu mel ni euh, nit ki tooñ la nga ne ko baal ma àq te doo te doo tudd àq ba mhm. loolu xeetu yonent bi rek ko am léegi nag loolu li tax ñu koy def ci julli korité yi julli feet la dañoo dañoo gis ne feet li muy tekki mooy am na loo doon defal yàlla comme ni mu la ko waxee ci commencement ba yàlla ne la tey nag li ma la santoon def nga ko tey damaa bugg may la benn feet boo xam ne da nga mën a féexal sa xol da nga mën a manifesté wu da nga mën a feeñal taaru lislaam mhm. taaru lislaam boobu nag mënoo koo feeñal fekk am na koo xam ne yaa ngi ko ameel ak mhm. yaa ngi dégg yow mënoo ne tey dafa am looy bégge am looy feeñal di fisal taar te fekk am na ak boo yoreel maam mhm. kii loolu mëntu am boobaa sax yow loolu sa xol dafay da ngay toog rek tiit na oustaz ndongo mi tooñoon naa ko loolu nag la ñuy bugg mu nekk mu denc ci yow mag ñi nag ñoom ñoo créé loolu duutoon sax ci jamono yonent bu ñu jullee ba pare nit ñi dañu dem kër gu ne ne baal ma àq waaye Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne diine ji dañ cee dugal aada aada yi léeg-léeg nga gis ci aada boo xam ne bu rafet la mm-hmm. daanaka boo jullee rek et eh, da ngay dem ci kër nit ne ko baal ma mu ne baal naa la gis nga nit ki boo ko jëwoon lu wax ci moom korite jot nga ne ko baal ma ak mu ne la baal naa la rek mm-hmm. nga yéene ko ci loolu da ci duggaale mm-hmm. ci lislaam daal lu ñu wax ne ni mënul la ko baal lu ñu nga delloo ko bu dee la mm-hmm. bu dee ne da nga koo ci misaal nga sàcc alalu saas ndoo nga ko denc ko ñëw ne ko baal ma charia mu ne déedéet boo demee ci misbaaw saalika dafay wax mu ne da ngay delloo yi jàppandi yi maanaam bu dee alal ji yaa yor da koy jox bu dee ne nekk fa nga jox ko ñi ko war a waaye mënoo denc alalam ba pare di ko wax baal moom kañ da ngay kanaa da ngay dem guddi rek wala kii ne ko ah, sañ bi de man de seytaane ma mënoon not ma ba ma jëloon sa alal sàngam mhm. damaa bugg nag delloo la ko nga suturaal ma te mhm. baal ma lool mhm. waaye alal alal moom mënoo ko wax nit baal ma mu ne baal naa te yaa ngi denc alal ji waaye bu loolu ak jëw ak xaste ak jaxase woon nit bu julli jotee nga ne ko baal ma rek maanaam loolu da ci duggaale kon daal noonu ma loolu mooy réponse bi oustaz Ndongo. Mhm. nga ci kàddu rek. waaw liñ ci dolli mooy àq dafa sew. Mhm. te comme ni mu ko waxee rek. Mhm. li nu ci yàlla defal. ñun ñoo ko war a sante yonent bi. sa sallallahu alayhi wa sallam. xam nga nit mën nga ko tooñ. te soo ko nee baalo ma mën na la baal mais boo ko waxee li li tax nga koy baal mën na la bañ a baal. mais xol li munu may. loo xamante ni ni tey jii ni yow xam nga ni nit. su fekkoon ni day ñëw ni su ni woon nit. balaa nga koy baalo wax li nga ko def ba pare. am na ñoo xamante ni boo leen baaloo du la baal. du la baal parce que dañuy xool natta foofu ñu nga tàmbale woon ba fii ñu toll liñ ci yëg ak liñ ci dund. seen xool du leen mën a may mais baal ma ma baal la nanga moo tax euh, ni ko imam waxee moo am solo ndax ak hmm, yonent bi dafa daan wax ni. sallallahu alayhi wa sallam euh, xam ngeen ku perte. ñu ne ko déedéet mu ne ki dem ba àllaaxira mm-hmm. indi fa yiw bu bari. yiw ba jukk mu bari lool ba mu mën see dugg àjjana mm-hmm. mu cay ñu cay coppati di fay ay ci saaga bi mu saaga woon nit mm-hmm. njaayu jàmbur bi mu feloon mm-hmm. wax ju ñaaw jëm waxoon ci nit àq yooyu noonu ñuy coppat di coppat ba yiw ya jeex mu ne ko perte xam nga nit ñi buñ xamee àq ni ñu koy fay rek dañ ko war a daw ragal ko parce que doo ko fay àddina fii alaaxira nga koy fay ci kanam sunu borom mm-hmm. subhaanahu mm-hmm. wa taala te noo koy fay sa yiw ngay jël fay mm-hmm. ndax yow ma laa yan fa maalun wal banun ila man atallaahu bi bi salim alal amu fa booy faye bor doom yow tay la nekku fa xol bu mucc xol bu mucc te sell mooy ñëw te amee loo kenn dara bu boobaa nag yow di nga mën a jël la nga am doga dox moom ba àjjana yonent bi ne am na ñoo xam ne même bu ñuy teg seen tànk ci buntu àjjana seen fiddu dal parce que ñu ngi xalaat na parce que am na yoo xam ne buntu àjjana la leen di xëcc buntu àjjana leen di xëcc bu ñëwee ñoom ñu fay aax te bu nu fayee pour wax lañ ne kenn du baal kenn yomal xiyaam li ci gën a yéeme mooy àq bu ma la ko amelee ameel ko imaam ma fay sama yiw yëpp imaam ak ñeneen ñi ma amee yow nga ñëw fekk man fayee naa sama yiw doo ma baal danga naan yàlla léegi moom na ma fay yàlla ni ah yiwam jeex na di nga ni kon yàlla buur bu maanu nga mhm. wallahu rabbul adil ngeen ko buur bu maanu nga léegi li fi nekk mooy jëlee samay bàkkaar lu toll ni àq bi mu amee la mhm. léegi ñu jël say baakaar lu toll bu dee man ñaar fukki kilo la mhm. dañuy jël ci say bàkkaar ñaar fukki kilo jox ma ko te xam ngeen ni dañuy peese yow mal xiyam lu baax lu mhm. bon man mën naa ñëw sama lu baax ëpp lu bon mais fay gi mën na wàññi lu baax li ba lu bon li mu jëkk ëpp lu bon ni tamit man na dem ba leneen liy jóge feneen ñëw ci man. mu mm-hmm. mujjee bari ba mënatuma am lu baax lu mu mën a teg ci balance bi pour peese ko. kon mm-hmm. loolu dafa metti mm-hmm. moo tax yonent bi salaahu salaam daan wax ni safara dinañ fa dóor nit bàkkaar bu mu deful. ñu dem dóor la te bàkkaar boobu yow defoo ko dafa fekk ni àqu jàmbur. nga fekk amoo yiw boo ko fayee. ñu jël ci baakaaram ya daal di la koy jox. nga daal di mujj dem safara nag ñu dóor la ci bàkkaar boo deful. te loolu dara gënu kaa métti ci kaw suuf. moo tax àq moom lu jar di moytu la. lu mhm. jar di bàyyi xel la kenn ku ci nekk di ci bàyyi xel te koo ko ameel bul wala nga njortu ni ameel nga ko wala mhm. sax li jullit ñi daan def koo dajeel ne ko baal maax mhm. ak waxtu mbooloo bu dee ngénte la wala muy céet wala toogaay dëj wax fu monti doon bu mbooloo ba jugee rek koo dendeel ne ko baal maax parce que xamoo koy ameel te doo ko yëg parce que àq moom mën nga ko yëg mën nga ko bañ a yëg nit nag dina ameel nit àq sax te foog ne ameelu ko àq kookoo ko ameel fekk bu ñu demee ba ci kanam yàlla moom day xam ni moom dafa njortu woon ni moom lan amel ndekete moom moo amel ama mm-hmm. te kon bu sañoon day bàyyi bu yàgg ci àddina du ko toppee ba si mm-hmm. te imaam jàngale na ko ba tàyyi mm-hmm. soo sëlmalee julli di nga xool di joor xool càmm ki nga jàkkaarloo waroo ko ciy patu boo xoolee xar kanamam war ngeen mën a seq jàmm mhm. baalonte ak ci toogaay boobu balaa ngeen di jug mhm. parce que mag ñi moom fu nu mu a daje rek mhm. dinañ baalonte ak ak jotaay ba mu manti doon bu ndaje woon di waxtaan bu nu jógee den baalonte ak parce que amaana ca wax ja nga wax nit surtout réunion yeeg yenn mbir yi xam nga parce que mën nga toog ci réunion waxee mhm. noo xam ni nit gisee na ci boppam wala nàngam mhm. mhm. après parce que noonu la mën a demee lu ñëpp a bokk faw ñu waxtaane ko te buñ koy waxtaane di nga am wax ju sedd am wax ju tàng pour nu paree nag ba nga xam ne am na solution kenn ku ci na baalu moroomam ak parce que loolu moo gën balaa jotaay bi di jub xam nga te loolu dafa yàlla daf koy topp ci njiitum réew ak dëkkam dégg yow président bu mu mënti doon yow mal xiyaam dina la taxawal ci kanam yàlla. ne la yaa ilifoon dëkk sàngam. nga ñu ni nag koom-koom ba nu mu demee woon hmm. alal ja nan la demee woon ndax kenn ku ci ne àq ba mu ci amoon jot na ko ci hmm. kenn ku ci ne la ka ca waroon na def nga ko ndax hmm. yaa ngi doon bàyyi seen wér gu yaram ndax seen alal ci yow la jaaroon ndax yaa ngi doon bàyyi seen xel seen xiif mm-hmm. ndax yaa ngi doon bàyyi xel seen naan ndax yaa ngi doon bàyyi xel di ko wàcc di ko wàcc ba boroom kër gi mm-hmm. ak ak soxna ma ki doomam mm-hmm. ba ci soxna si ak jëkkëram ba ci xale yi ak seen ak seen ak seen bor moo tax ñu yonent bi ni yow mal xiyaam sallallahu alayhi wa sallam ah. da ngay gis xale yu ndaw yu ñoddi seeni i pap ak seen yaay di leen xëcc ya suuxoona bay na yadda illah ba xëcc leen ba taxaw leen ci kanamu yàlla inna haza waliyuna fi dunya daal ni ñii ñoo doon suñuy waajur mosuñu mhm. diggal lu baax mosuñu jàngal lu baax ñoom daal dañu boyaloon rek naf alumaana chaaw ñuy def lu nu mhm. soob kon jëlal sunu àq ci ñoom mhm. loolu tax nag yonent bi ni du dara du xale yi dañ réew de isra aw naara dañuy seen safara te imaam na ko doon wax ci tafsiram yi takat du tamayazu minal gaysi nga xam ne safara bu tëbee ba fuur ku taxaw yowmal xiyaam da ngay tiit yuuxa ya da ngay tiit dafa raklu foofa nag nga gis doom ji poñe yaayam jël ci moom ak dem dem àjjana bàyyi ko mu dem safara mhm. te xale boo dëkk micro ci àddina mun la dama bëgg a teral sama yaay mhm. mais bu ñu demee ba yow mal xiyam nga jël sa yaay yóbbu ko safara ak sa pap yow nga bëgg a dem àjjana kon taxawaay ba na mu mel moo tax mhm. ndax yëzaru fihi assiru secret fa lay feeñ mhm. loo ameelu nit ci lu sew ci àq te yëgoo ko mhm. bu bis baa dina feeñ fes ñëpp a gis ko ndax wa kullu sayin ahsaynahu fi imaamin mubin comme ni ko naam waxe macha allah mi ngi noonu dégg ngeen ko nañuy nit matul comme niñ ko waxee léegi nit matul donc nañuy moytu rek ah ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul luñ ko deful. Mhm. te moom am xolu baal ak macha allah. ndax ci la sax foofu uh-huh. ma yokkal bi dafa dafa jëfee ndax moom dafa am juddoo màkka. Mhm. màggee fa ñu yónnee ko fa. mu amee ñeent fukki at. Mhm. bañ ko yónnee mu toogaat lu mat fukki at mu am juróom fukki at waa màkk di ko bundoxatal génnee ko. mu dem mi dina am fa fukki at ak ñett ba mu ñëwee màkk dafa wax ne. maasaa tasannoon anni faayilu bikum mm-hmm. lu ngeen fonne laa leen di def xam nga ñoom ameel nañ ko ak ndax dañ koo génnee di teg ci deram lu bon mm-hmm. yonent bi yonent bi ñu ne ko anta aqul karim wa ibnu aqul karim mm-hmm. ku baax nga doomu ku baax nga yonent bi ne ne leen ishabu fa antu mutulaxaa dam leen man baal naa leen àq antu mutulaxaa maay mooy baal naa leen ak kon moom loolu pratiqué na ko ñooñ tooñ nañ ko mu jéggal leen beneen bi jéggale bi yonent ba mu nekkee màkk sonnal nañ ko mu dem dëkk bu ñuy wax Taïf mm-hmm. ci côté Makka la nag ne dafay làqatu ji ndax boobu ñu ngi koy fitnaal fitna bu métti ak saabaam mm-hmm. bañ demee mu fekk fa benn waay bu tudd Abdul Yaali ak ku ñuy wax Masud ak Habib mm-hmm. ne ko lan la mu ne daal man damay oote ne yàllaa ma yónni ñu ne ko bu dee nee yàllaa la yónni ñun ku yàlla yónni mënuñoo wax ak moom bu dee nee nag waxoo dëgg kuy fen moom tey nañ la toroxal ñu boole koo xaj yi ak dof yi ba xaj yi màtt ko ba nga xam ne tànkam bi dagg na sax waaye deretam bu woon ci suuf rek àddina dina tukki yonent bi di ñibbisi ba ci benn place fekk fa ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi fa benn waaye bu ñuy wax xadas ak ñaari surgaam yi mu jël raisin ñu koy wax xinab ci arab jox ko yonent bi addi yonent ba mu ko lekkee ba pare ba muy lekk ne bismillah waa na ko ne eh, lii yow de lii miinu ma ko fii mu ne ko yow foo dëkk mu ne ko niinu waa yonent bi na ko sama mbokk mi yunu sa fa la dëkk yonent ne ko kon waa ji ne ko kon yow yonent nga mu ne ko waaw dañ maa génne fii mhm. jibril wàcc ci saa si mu ngi ci téere yi ne ko yàlla mu ne boo waxee rek mu jël ñaari doj yi feqlante ko ñoom ñëpp ñu génn àddina mhm. boo demee ci woykat bi mu ne law lawlaa nabiyun rasulallahi laxturi moo mhm. bil axsabay ni walakin man na bil karami loolu ci xilaas zahab la nekk mu ne yonent bi nag jéggal leen bàyyi mu ne yonent lu yéeme la daf yonent bi jéggal na leen jéggalu na leen layal leen xoolal yonent bi li mu wax dafa wax ne allahuma ixfir li qawmihi fa innahum laa yaxlamuuna yow yàlla yàlla nga jéggal samay nit loolu rek dayoon na waaye xamuñ li tax ñu may tooñ dañoo xamul moo tax mhm. kon daf leen naa jéggal jéggalul leen layal leen mhm. kon yonent bi moom nit yàgg na koo tooñ yoreel ko ak mhm. moom mu la am beneen waaye bu ñuy wax Kaab ibnu Soxayr ci balu balu àq boobu laa lay wax dafa ŋàññoon yonent ba yonent ne kii dee fu ngeen ko fekk rek mhm. na ngeen tuur deretam ndax da ko daan wax bon di bind ci moom lu bon bu doon léegi ci misaal ci àddina bi comme ni nit ñi di def ci internet rek xëy rek bindal nit loo xam ne lu métti la lu ñaaw la mhm. di ko ŋàññi kaab la tudd léegi yonentu ne ku ko gis rek moom jox na ko ndigal mu daal ci kawam kaam nag loolu jaaxal ko mu ñëw ne waaw yonentu est-ce que bu ko jéggal dana dana la jéggal mm. ñu ne ko waaw ku baax la ku mën a jéggale la kaab dem sol benn mbubu ñëw muuru toog commencé di wéy ay xasida mm-hmm. naan baanat soaadu fa qalbi yowma mabtuulun mu tayamun isruha lam yufil maqbulun wa ma soaadu xadaatal bayni isra allo ila aqana tarfi fa xayfa u muxbilatan acha mudbiratan laa yasaka xisru min awlaatun di wax li may woy noonu ci arab loo wax ci jukko ji rafet rek mu ngi fa bam bam egsi ca inna rasulu la sayfun yu sa daaw bi mu àndul min suyoo fi laay masloolu mu ne yonent bi dafa baax tabe ni mu mel dafa mel ni jaasi joo xam ne dañ koo jëndee ind nga xam ne dafay rafet dafay ñaw boo tegee mu daal moom noonu la tabe mel moom loo bëgg rek dala koy jox comme ni nga ko bëggee yonent bi jéggal ko jël mbubu sànni ko may ko dafa jël mbubb mi sa soloon may ko ko mu tudd Buraan kon loolu rek laay dolli ci jéggale bi ci balo ak boobu mhm. nga continuer sa tam si jéggal boobu tamit mhm. su ngeen ma ko mayee am naa lu ma xam ne lu tuuti si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. si mbaaxam ci jéggalam xolam muñ macha allah ndax amoon na euh, dëkkandoom bi nga xam ne da jël mbalit Mm-hmm. di ko teg ci buntu këram mm-hmm. saa yu xëyee mu jël mbal gis mbalit bi jël mm-hmm. mbalit bi dem sànni benn bis jot ñëw gisul mbalit bi ci buntu kër gi dem laajte ñu ko daa xaw a tawat mu dem ba ca hôpital bi di ko seeti seeti ko ñëw tëdd kooku ni ko nan la def ba xam ni que fe dafa feebar bu mu xëyee gisul mbalit bi ci buntu këram la laajte ni ah tey de am na lu xew ci la xam ni que ni tey kii dafa feebar. Mhm. mu mu balu ña di ko balu àq. Mhm. ndaw si tëdd. Mhm. mu balu ko àq lool nga xam ni loolu yërëm yéen ay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ak xolu bu mu am macha allah ñun ñi nga xam ne ñoo war a roy si moom yàlla na yàlla yàlla tàppe xol yi rek. comme ni ko maam da baax di waxee. radiyallahu anhu nañ tàppewaat xol yi balu àq yamul rek ci korité yamul ci tabaski chaque bis bu yàlla def bis bu yàlla sàq war nga gis sa nawle sa sa sa sa nga balu ko àq xam ni que. mën nga def li nga xam ne tayoo ko mi ngi noonu macha allah kon nañ ci bàyyi xel bu baax ñu hmm. delluwaat ci laajte yi rek hmm. imaam damay bëgg si korité bi hmm. yonente bi sallallahu alayhi wa mooy suñu référence si moom la ñuy basé donc euh, moom nan la doon dundee bisum korité jërëjëf yonent moom la ñu yàlla wax ne nañ koroy laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun asana wala am na nañu jàng uswatun asana mhm. mu ne yonent bi am na royukaay bu rafet bu dee dañu naa bëgg fu ngeen di roy moo ñi li tax ñu leen di roy mooy li ñu roy yonent bi mhm. dañoo gis ne ñoom seen lépp dañ koo jox yonent ku roy yonent nag ñu roy la ni mu ko daan defee rek comme li ëpp ci jullit ñi ni koy defee mhm. boo demee ci téere yi ñu ne yonent bi amoon na benn jilbaab maanaam benn jàllaabe boo xam ne da daan pour ni mu fonke woon eet da ko daan denc pour korite ak tëbaski la ko daan sol loolu téere siré yi saxal nañ ko bu xëyaan li muy njëkk a def dafay lekk te li mu daan lekk bu xëyee korite tàndarma lay nekk dafay tool suwaat mu nekk ñett wala mu nekk benn wala mu nekk juróom ndax yonent bi moom moo jàngale mu ne julli korite boo xëyee suba na nga dugal dara si sa gémmiñ gi mhm. pour ñu xam ne tey oro bis boobu sax dafay insister ne bokk na ci bàkkaar yi di or bisu tabaski ak bisu korite loo mën a mën a or bis boobu doo ko or ndax bisu taarlu la bisu feet la bu xëyee li muy njëkk def sallallahu alayhi wa sallam imaam doguma la mhm. am na ñi nga xam ne dañuy woor comme mhm. tabaski mhm. ñuy woor ba midi daal di dog waaw kon loolu dafa anaam déedéet loolu ci boo demee ci téere yi dañoo wax ne loolu tudd or dëgg-dëgg loolu jàpp la tudd ah. ndax boo demee ci masa bu dañoo wax ne or amul maanaam genn wàllu ci gisuñ ci charia mm-hmm. or loo xam ne genn wàllu or la tudd mm-hmm. dañ koo tuddee or noonu rek ndax or sawmu ci arab dafay firi al imsaaku mooy jàpp mm-hmm. dangay xëy ñàkk lekk ñàkk naan ba ñu rendi xar mi nga jël res wa lekk ko loolu sunna saxal na ko loolu sunnaal nañ ko ci ku am tabaski ak ku amul tabaski waaye loolu jàpp la tudd dëgg-dëgg waaye du or gu mat ndax or amul luñ ci dagg ci maanaam liñ ci war a or ndax alquran dafa waxoon ne su ma atimu siyaam ilal lay bi mhm. koor dafay commencé fajar ba jant sa loolu imsaak la tudd yaa ngi dégg comme li li yonent bi di tere mooy ku xëy rek korite jot nga ne ah man daal tey damay oor mhm. ndax dafay mel ni yow feet gi da nga koy xajamal wala di soofantal feet gi daal yow neexul la da koy tere mhm. léegi moom bu xëyaan bu bu bu lekkee tàndarma sangu moom sunna lim daf da koy jàngale sallallahu alayhi wa sol yére boobu jàllaabe boobu léegi nag ànd ak saaba dem bu demee julli comme ni ma la ko jàngalee ci julli gi mhm. moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko daan defee xale yi sax dañ daan ñëw di tere xale yi nga xam ne dañuy feetu di di nekk seen kii comme ça di ànd di dem am ñu leen di tere yonent bi ne ñëw na ci addis yonent bi ne bàyyi leen ndax ñoom tey seen bisu feet la mhm. am na ay xale yuñ jàng ci addis ne feet dafa jotoon am na daal lu ñu nekkoon loo xam ne ñoom seen culture la seen aada mhm. seen wàllu cosaan am ku leen koy tere am na ñu ne abu Aboubacar Sadiq la yonent bi ne ko bàyyi leen ñoom tey seen bisu feet la mhm. te lépp rek ci lislaam la kon nga xam ne feet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko mhm. nit ñuy jullee nii daal moom noonu la daan jullee moo mhm. wax la foofu itam ne korité ak tabaski dafa am gannaaw farata dafa am yu gën a dëgër yoo xam ne ñoo sës farata rek mën nañoo wax ne buñ bu farata euh, bu fi jógewoon ñoom ñooy ñëw bokk na ci tabaski ak korité mursi dafa wax ne kii witrun kusuufun aydun istisqa u sunan mu ne julli witar sunna la bu dëgër julli ayet tabaski ak korite sunna la bu dëgër istisqa mooy julli baaw naa mooy julli goo xam ne dañuy ñaan ndox pour ndox mi ñëw yooyu ñoo sës ci farata rëkk nga xam ne yonentu daf na ko digle ne moom sallallahu alayhi wa sallam ne ñu def ko kon daal loolu laa ci tontu nga bàyyi oustaz mu dem ci la ci waxtaan waaw loolu am na solo mm-hmm. comme ni nga xamante ni noonu la ko imaam waxee. mu mm-hmm. nekk loo xamante ni lu nit ñi war di bàyyi xel la. Mm-hmm. ci ñaari it yooyu. ku ne xam na ni feet la. te feet moom dafa doon loo xam ni dafa am lu ci nit lu war nit ki. ci lekk lu neex. naan ko sol lu rafet. xam nga dund ko ba yëg ni yow. feet bi la yàlla jox. xam nga feet bu la nit bantu jox ci kaw suuf. ñun dañ ko fonk. xam nga chaque jour nga gis feet même jigéen ñi bis bi leen jagleel seen feet mhm. dañuy xotti yëre yu bees nanga mais feet bi nu yàlla jox nag moom lañ war a gën a fonk waaw loolu xam nga def loo nanu ci koor gi loo xam ni defuñu ko woon mhm. Mhm. mu ni suñu xëyee rek ñu tere wu ci lekk ak naan bànneexu lépp lu mën ci doon nga toog weer doo ndékki woo añoo ak ni nga ko miine woon Euh, waxoolu ñaaw defoo ko ak ni nga tàmmee woon. léegi tey nga dem ba korité mu may la feet kon yow feet boobu tamit amal loo ci jàngat daal. Mhm. nga xam ni tey du bisu caaxaan bisu euh, euh, miraas sa bopp la. Mhm. xisaabaat sa bopp. Mhm. réglé waat sa bopp ci li nga dëgg ma laan nga ni waaw man taxawal ndekete li ma yàlla tere woon doon ma def loo nii man mën naa ko. kon kon ne da ngay xam ni kon ne ndekete li la yàlla tere yow nga ko. kon da ko doon bañ a def. Mm-hmm. mais man nga ko. Mm-hmm. nga toog ni waa léegi taxawal man dafa am lu ma bàyyi woon ndax woor yi. Mm-hmm. man damay faral di wax ni lépp lu nit bàyyi ngir woor yi. su paree bu mu ko jëlaat. dëgg ndax lu àndul ak koor rek àndul ak lu yàlla bëgg. lii dama ko daan def tey la tey la weeru suba dañuy woor weer wi lii dama koy bàyyi ba woor yi non boo génnee ci koor bu ko jëlaat. parce que su baaxoon ànd ak yow ci koor. la déet bu baaxoon moom day ànd ak si ci lépp loo xam ne nag àndul ak koor mm-hmm. Mm-hmm. yow sa bopp xam nga ni kon lii nekkul lu baax mm-hmm. léegi nag koor gi loolu nga am nag dund ko yàlla may la nga dund ak dal mu téyel la seytaane mi lay perturber nga xamante ni nii tey moom chaque jour mu ngi xëccu rek nekk kilifa ni pour lor leen wa man laa waliyoo fa seytaane waliyu su yàlla nekku sa kilifa rek seytaane nekk sa kilifa te kilifa gi dala koy forcer pour jël ko ci yow def loolu lu lu na lu yàlla bëggul parce que loolu rek la bëgg. soo mhm. soxna Hajara loolu rek mooy mission mhm. mooy na lay fexe ba yow yàqal la. Mhm. lu baax li nga war a am. moo tax allah tax bu du seytaan innahu lakum aduwwun mubiin. seytaan duñ ko topp te lu mu samp pour ñu jaamu ko kenn waru ko jaam ndax noonu. noonu gënut a rëy. daa dox sa diggante ak àjjana. ubbi la buntu safara. lépp loolay génn àjjana xaj na ko. ñoddi la safara jox la ko loolu sa noonu la mais képp koo xam ni <laughs> mu ngi lay ñoddi yóbbu la àjjana mhm. xañ la safara ak la fa nekk wala iyaasu billah mhm. ko soppe la mhm. kon na ñun dañ war a xam ne yonent bi mooy sunu soppi sallallahu alayhi wa sallam mais iblis mooy sunu noonu te lool rek ay bëgg a bëggam te nag loolu nag moom koor gi yàlla téyal nañu ko foofa nag ngay xamee ni nafsu yi war nañ ko xoolaat parce que rey yi am ci koor gi te bu ab bu dul woon koor ñun ndeysaan seytaane ko jàpp ba mu rey. Mhm. léegi téye nañu seytaane. Mhm. léegi ñuy rey lu leen jàpp. Mhm. lan moo leen téye. lan moo nekk ci ñoom. kon koor moo ni raxas. yusibu bi sayyi'aat mooy dindi ñaaw teefi waaye nag yooyu yuksirul xasanaat. mooy yokk yiw yi. te loolu bu ñu demee ba korite. comme nii ñu tolloo ci dëgmal ko incha allah nga xam ni suba rek incha allah. pour yàlla dimbali ñu def ko. incha allah léegi nag bu ko defee nag loolu ñun ci sunu bopp. Mm-hmm. ñoo war a amaat jàngat ci sunu bopp. Mm-hmm. parce que ku xëy jour korité doo am envie ndékki. Mm-hmm. comme ni mu ko waxee comme ni ko imaam waxee. foofu li yonent bi insister nekk ñëpp def mhm. bu dee tabaski sax taamu nan ci comme ni nga ko waxee léegi mhm. ba ñenn ñi di ko tuddee koor mhm. mooy roy sunna ba nga xam ni xar mi nga rey di nga di nga dogee ci xaram moo waral ñi ni daan def ba midi wala ba onze pour man a xaar res bi pour mu jëkk dugg seen gémmiñ ñaan Adama woor ba ba ba ba ba yoor yoor ñenn ñi di ko waxee noonu ñeen naa comme ni mu ko waxee mais noonu la ko nit ñi xëy na mënoon expliquer waaye yow mi xamul nag bu ko jàppee noonu parce que li mu wax rek koor dafa am tàmbali am jeexital waaw te am lu koy sabal xam nga waa kay mi ngi noonu léegi nag yow ci sa bopp bu korité jotee nag balaa ngay julli ci mhm. incha allah yow fexeel ba ut loo lekk mhm. nga xam ni tey comme ni mu ni mu ko wax ni yonent bi taam woon na ci tàndar mhm. am na xam bu mënul lekk tàndar sax nan naan café donte période boobu seen biir tàmmatul ndékki mën a gonu xëy di lekk mais nan ut lu dugal seen gémmi ba xam ni tey oorul ñu dem dundal bis bi ndax bis boobu yàlla da ko def feet hmm. mënoo ci jaay ngëm yàlla ba or comme ni mu ko wax rek hmm. bàkkaar la lay mujjë hmm. la lay mujj kon da nga doon faju faf loru parce que moo feebaree ñëw ci yow nga seet sama yaram ni ma ah, li lay faj de comprimé bii la dama nga jënd ak ñaar suba ñaar ngoon man yi dama am eh, ngént ci semaine bi xaaral ma naan tablette bi pour teel a wér boo moytul tablette yooyu ma teg la mën na ma joxaat beneen feebar dootuma mujje faj daf may lor te nit ki war na xam li koy jariñ mu def ko mm-hmm. mais nag di jéem a xool lu neex yàlla mm-hmm. te xamuloo fooy jaar mm-hmm. boo moytu dajeeg sànjatam xam nga waa ji dal naka ca sëriñam sëñ bi mosu ko sant dara benn bi sëñ bi oote fekk moom rek a fa ne sëñ bi ne ko tànkay dafa nagam damay wut ko gëbës mu kontaan ci ndax cofeel gi mu am ci moom ndekete sëñ bi dafa tàpp mu koy bës di ko bës ba bësaale tàpp xam nga ko tey jubluwu ci gaañ bi mm-hmm. mu ngi dab bànneexam xam nga mm-hmm. mais sëñ bi mettit bi jàppa na ko mm-hmm. bëgg na ko wax dara yuuxu na ko mais après moom it xelam rek ku am tawxiit xelam dem na ci yàlla mu oo ko mu ñëw mun ko ñu waxtaan ba li nga ma def man moom laay def yàlla di jéem a ut lu ko neex ba daj dal ci meram kon nit da nga war a xam comme ni ko imaam waxee boo gisee mu ci sonn. Mhm. ci weer bi fàttali nit ñi. ci événement bi nu dëgmal mu fàttali ci mhm. ñun ñi. pour mhm. rek ñun ñi bañ ci rax lu ci bokk. parce que wax na ko sànq. cosaan ak aada gi nu am. Mhm. am na loo xam bi islam duggee ci dëkk bi da ko ànd ak sunuy maam. Mhm. jël ko ba que fekk mu rafet. Mhm. am loo xam bi mu ñëwee da ko dàq. parce que fekk mu ñaaw. léegi nag bu ko defee nag bis boobu nag ñi ni xam ne bisub julli la. bisub jaamu yàlla la. loolu nag am ci julli bi tamit da nga ciy gis saan jigéen ñi dañuy xëy. nekk ci xollik soplek nangam ba bàyyi julli ga mel ni warul ci ñoom. parce que da ngay dugg kër fekk jigéen ñu toog mel ñoom julli gi waru leen. góor ñi rek la war te mhm. pourtant ñoom la war mhm. ndax innal mhm. muslimina wal muslimaat dafa am jullit bu góor am jullit bu jigéen kon tey ñoom neewul ni togg leen togga yi rek ngeen bañ a dem jullit ci déedéet boo gisee Seydina Limaamu alayhi salaam moom ci jàngaleem dafa ni même korité jigéen bi nga xam ni dafa am gànt moom na ñëw doguma la sax foofu boo ñëwee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne donte dañoo gis reegal sax nañ dem waaye bu ñu demee dañuy beru pour yiw bu fay wàcc mm. place yiw la kon loolu ñu wax mm. yiw bi ak mm. déglu xutba bi xutba bi discours bi muy joxe discours bi nga xam ne kon tey kii indi jigéen ci période boobu technique dama ca ginnaaw nag xam nga bun kàbba rek kenn du la gis bun sërmalee ñëpp a geesu fekk nga toogee kenn du la yow lii daal na mais sutura googu mm-hmm. mais nga ñëw bokk ci mais nag léegi bu dee tabaski dañuy xëy fajar. Mm-hmm. nekk ci nangam yeeg soble nangam ak nangam. Mm-hmm. na xar mi gaaw ñoom na añ bi teel a pare. Mm-hmm. nangam moo leen di yitteel moom day ne ba fàtte ni. lig ci ku góor kii uti ñoom war nañ kaa mën a am. dëgg naa ndongo doguma la kon su ma déggee ngeen wax jigéen ñi tamit dañoo war a dem ci jumaa. dan war a julli ji julli ji korite ak tabaski waaw dañ ko war a def parce que jaamu yàlla la. xam nga tey boo dee góor ñi rek. te boo dee ñu ber la ber ko góor gi ku nekk mhm. sa bàmmeel mhm. bu boobaa yiwit nag du doy mhm. te allah loolu fi yóbbu du doy farata la du farata mm, sunna la sunna la julli bii waaye tabaski korite moom la doon leeral sunna la la waaye dem fa dafa nekk loo xam ne lu rafet lay nekk te téere yi dañ ci insisté bañ nañ ko bañ na la sax boo gisee reegal na nga dem toog waaye doo julli pour nga teewee yiw ba pour nga dégg dis nga déglu discours ba xam nga sax loolu du ci àjjuma bu doon ne àjjuma la sax moom jigéen mu fay dam dañ koy sopp rek waaye lislaam ci jullit tabaski korite ci la gën a bugg sax jigéen dam ci jullit àjjuma mm-hmm. waxuñ la fenn àjjuma jigéen bi gisee regal na dam pour teewee xutba bëgg déedéet mm-hmm. ndax fee li fay wàcc moo tax ndax bisu feet la ndax lu tax góor ak jigéen yëpp ñoo bokkoon di def ndigal bi tey gannaaw may nañ leen bànneex ñoo ko war a bokk waaw loolu loolu moom waaye nag lenn rek laa ci yokk mm-hmm. mooy jigéen bu ciy dem na xam ne jigéen la rek na ci comportement am ci solum ci ni muy muuroo. Mhm. te itam fuqaaw yi dañoo wax ne jigéen buy dem ci julli wala mbooloo bu mën a doom rek parfum bi muy laal ñoom tiibu lañ koy tuddee mag ñi di ko firee gët. Mhm. bu mu nekk boo xam ne dana attire nit. ci niñ la ko mën a jàngalee nga xam ko. am na parfum yoo xam ne boo ko laalee bu góor daf koy attirer. Mhm. booy dem ci julli aadi yow yooyu na nga ko loolu yëpp am na lu ciy bañ donte sax duñ bokk benn place waaye am yoo xam ne dañoo fort classe ba ëpp. xam ne bu boo toogee fii kii teew fee. dana la attirer ba ba nga xam ne góor gi bu ko jigéen ji xeñee parfum boo rek mën naa am lu mu yëg ci boppam kon daal jigéen ji dana julli ji waaye buy julli ji na xam ne jigéen la rek ci comportement mu raay simple mhm. waaw yéen waaw ndax nit ñi yemul moo tax bërëb mm. bërëb bërëb boobu kon oustaz ma bàyyi la nga ah, contre kon euh, su ma leen déggee ngeen wax mm. euh, même ci weeru koor mm-hmm. est-ce que jigéen woor def parfum yooyu noonu dagan na parfum terewuñ ko góor tere wuñ ko jigéen. Mm-hmm. parfum itam du yàqu koor. wax naa ko ci laaj xam nga li ñuy tere ci koor comme nga taal cuuraay saxaar bi di génn nga dugg ca nee boobu léegi boo fa duggee saxaar bi di génn soit mu jaar sa bakkan yi àgg sa purax gi wala mu jaar sa gémmiñ gi àgg sa purax gi parfum tere wuñ ko kenn ci koor. Mm-hmm. yonentu dafa waxoon ne. xubbi mm-hmm. ba ilaa dunyaakum salaasa. mu ne seen addina bi ñett ma fi gënal ñu ne ko ban mu ne at tiibu parfum. ñaareel bi mu ne wa nisaa jigéen ñetteel bi mu ne wa julli mu ne julli nag moo ko ci gënal ndax moom mooy sedd xolam bi moom bu amaan ndax xolam bi du naqadi waaye bu toogaan rek ba nit wax ko lu ko naqadi dafay wax bilaal ne bilaal ne ko noddal arix naa bi salaati bilaal kii mu jóg julli pour mën a dal bu ne jigéen itam liñ ciy jublu dafa am yërmande ci jigéen ndax jigéen dafa néew doole moo tax mu ne jigéen a ma gënal waaye daal parfum moom yàqut koor terewuñ ko jigéen terewuñ ko góor heure bu la neex mën nga koo def waaye booy dem ci mbooloo yi mbooloo yi nga xam ne mbooloo lislaam la jigéen am na yenn parfum yoo xam ne bu mu ko di parfum xam nga parfum fi ñu koy tere ci lislaam mhm. mooy ku armal dañ koy tere koo xam ne armal na dañ koy tere mu laal parfum loolu moom ñëpp xam nañ ko waaye bu dul loolu moom tere wuñ ko benn yoon mhm. macha allah islam sax dafa sell. dafa sell waaw dañ bu mu sell. sañ se du def lu baax. macha allah mm-hmm. loolooy islam macha allah nañ ko sellal. Mm-hmm. Ah, laajte yi leer na trop macha allah ànd seeg oustaz Ndongo moom it def si contribution bu bu macha allah. Ah. Mm-hmm. macha allah imam dañuy si laajte yi rek. Euh, ndax euh, si jouru korité tuur ci deret farata la. du farata. tuur deret. fi muy nekkee farata ci lislaam mooy tabaski ci catégorie ji xar wala bay jëm ci nag jëm ba ci gëlëm loolu moom xam nañ ko ci sunna ganaar nag léeg-léeg ma dégg ñu koy tudd waaye mu ñëw ci benn téere ganaar amut benn téere bu bind ne war nañ koy tuur deret ci événement bu xew yaa ngi dégg mm-hmm. li tax ñu koy def ci korité da korité dafa nekk ganaar bi su fet la te doomu aadama nit ki daanaka réew mu ne nit ñi liñ gën a bëgg buñ feetoo rek loolu lañuy jëfandikoo te Sénégal ku ne xam na ne réew la moo xam ne dañoo bëgg di jëfandikoo ndawal. te mën naa am ñoom biñ ciy gën a taamu li gën a bëri ganaar lay nekk loolu moo tax ñu koy jënd rek. korité di ko rey xam naa Mamour Cissé moom yàkkamti na ko <laughs> korité yi ñëw ndax <laughs> bu ganaar léegi ñu ko loolu tax korité mhm. ñu koy rey wala ku amul ganaar nga dem jënd ndawal indi ko sa kër mhm. ngir feet gi gën a neex mhm. ndax nit mënul di wax ne tey feet la damay am lu may béggee ba pare di xiif foog nga lekk ba suur naan waaw comme niñ ko xamee waaye du daal sart ne da ngaa war a rey nangam wala nangam. am na ñoo xam ne sax ay caakiri la ñuy defal. ku nekk daal ak li sa pos attan rek. ak sa kii li yunfiq su mhm. saati min saati. Mhm. wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu mhm. ku nekk li man rek na ko def. suñu fet la nag dañ ko war a ormal jox ko gëddam ndax moom lañ am ñun jullit yi nga xam moom lañ am suñu fet dañ ko ormal as ustaas ndongo ah? macha allah comme bis boobu moom bisug feet la mhm. te yàlla dogal timit xam nga ñu jóge woon ci xiif mhm. ci bëccëg ya ak nangam mhm. ñëwaat bisu bégal sa njaboot la comme ni wax rek euh, dëkk bu nekk rek li nga gën a bëgg rek sa feet loolu rek ngay taxawee def ko bu ko defee nag bu nekk loo xamante ni ni boroom kër yi war ci bégal seen i njaboot mm. kenn ku ci nekk yëg ci boppam boo gisee ñu ci joxe euh, muddum koor comme mm. ni ma ko waxee mm-hmm. nga gis ni kay loolu rek pour nit ki mën a bokk ci ki ñàkk it mën a bokk ci feet wi rek mm-hmm. nga xam ni léegi bis boobaa doo soxla sax kenn kuy ñëw di yalwaan jëm ci yow mm-hmm. da ngay gis ni léegi moom ci boppam mm-hmm. day am comme yow da nga koy jàppale kenn ku ci ne ki nga mën a yàkkal nga yàkkal ko kenn ku ci nekk dund mbégte boobu xam nga kon tey day doon bis boo xamante ni lu kenn jaru kenn naan kaay ma invité la wala yàq naa mhm. ama jouru tabaski imaam julli ji ñëw di ma bàllaax ma jox ko palaatu yàpp ma lay xewlu ba panakan te yàq naa la mhm. yàppuma ko parce mhm. que su génnee sama kër kër gu mu dugg rek a fay fekk kon tey jii nii bis la boo xam ne feet la te kenn ku ci nekk war nga ci bégal sa sa morom ko defee nag loolu kenn ku ci nekk bàyyi ci xel euh, mu nekk loo xamante yi nekk lu lu am solo comme ay tur deret moom moom moom comme ni mu ko waxee loolu moom dafa nekk loo xamante ni. Hmm. kenn santu ko kenn. ci hmm. ni di ko sonal daal. Hmm. nga naan su ma amul xar kon jël ma def korité. sama ko wala su ma amul nag wala nangam. mais ginaar moom mu moom lañ ci gën a taamu ndax moom xam naa moo ci gën a sonn. xam nga àddina moom moo tëddee noonu. <laughs> ginaar moom dama dama faa mën a xaw ma ndax dafa tuur daaw waa li xaw ma daal ñu ñaanal mais ginaar. xam nga sax di nga ni xar tabaski wala nga ni nag tam xarit wala gàmm wala nag. mais ginaar fépp. fépp moom lu xew fépp fépp rek moo ci gën a sonn daal. mooy mbir bu gàtt bi te loolu ci yàlla rek am la mun a jàngal. Uh-huh. mooy gàncax gi lu muy bari bari bari bàyyi may du leen bàyyi tànk jeexul. Uh-huh. ñoom ñu ngi ci ñax mi chaque jour di lekk rek tànk ñax mi jeexul ñoom duñ bàyyi. Uh-huh. ñu nit ñu ngi ci ñoom rek bu la jugee ci gëléem yi lekk ba suur ñu nga ca nag yak xare di lekk rek. di reen di lekk saa yu ko bëggee te am ko. waaye nag ñu nit suuf duñu bàyyi. ñu nit hmm. noonu la ba sunuy maam ba fii ñu toll rek hmm. Hmm. dañ gis ni chaque jour suuf a ngi rompat rek di jël moom it moom it du bàyyi nit ñi tànk nit ñi jeexul kon nag noonu rek lañ koy kee mu jàngalaat nu taw xit te ñu santaat sunu borom te gis ni gis nga tabaski bu mag ñi daan rey seen xar ba pare dañuy jël der bi daf ko jullikaay pour rek fàttali ko waat seen borom suñu demee ba julli jot suñu taxawee ci der bay julli ni ah lii pourtant nag maa ko rendi jëfandikoo Euh, yàppam tey waa ci di jaamu sama borom. Mhm. amaat ci tawxiid daal. Mm, fàttali ko waat ci yàlla loolu daf leen daan neex. Mhm. ñuy jël deru xam ne daf ko jullikaay pour di ko fàttaliku. Mhm. xam ne lii lu doon dundalal lu ma rey yàlla may ma ma jëfandikoo ko te toppeewu ma ci dara. xam nga loolu solo daal. macha allah euh, Oustaz Ndongo xam nga da wax léegi léegi ci wàllum seytaane yi ñuy jàpp ci weeru koor gi. léegi ñoom euh, ba su jour korité duñ leen yeewi rek. waaw xam nga seytaane moom. korite euh, buy buy génn day génne wàll ak mer. Mhm. moo tax yalwaan yu bari lay këpp. Mhm. la gars yi amoon seen loxo ku ko téyewul bu baax rek. <laughs> mu daal di koy këpp. Mhm. parce que mer lay génne. mer googu muy génn nag li mu yàqul woon ci weer bi da bëgg a yàq ci benn guddi gi. moo tax foofu nag da ngay gis li mu yàq ci guddi yi. yow xam nga ko. keneen xam na ko maam tey ñu ngi ci dëkk bi xam na li xew tey bu suuru korite jotee ba nga génn benn heure bi doxantoog sa oto da nga naan ndax ñii ñoo nekkoon ci weeru koor bi wala déet. Mhm. xam nga day les gars yi sax dañ koy wax li koy firndeel mooy damay tëj saison bi. Mhm. mais loo tijji woon bay tëj ak ban caabi nga wax dëgg yàlla nag boo demee boo paree tamit da ngay gis gars yi li ñuy jugee. Mhm. ak ci li ñuy nekkaat parce que kenn du ko feete ak caaxaan. kenn du ko feete ak caaxaan. li nga koy feete mooy dellu ci yàlla. fàttali ko waati yàlla loolu daal am. mais foofu la ñu bari nag seen yàlla waan di këpp. macha allah mi ngi noonu. Hmm. tey Eid Eid Mubarak bi nga xam ne moom la ñu jëm suba incha allah. Hmm. tey def seen plateau ànd seeg oustaz Ndongo bi nga xam ne tey moo ñu ganale si fii suñu plateau waxtaanu koor. Hmm. gunge nañ leen ci koor gi comme nu nga ko waxee ci début bi ci bisimilah rahmaani rahim suba si nu yàlla incha allah ñu koy yeggalee si alhamdulilah rabil alamin imaam dañuy jox gars yi rek di jege xam naa nag jotaay bi bëgguma woon mu jeex ni mais noonu la war a demee daal. macha ñu ngi nuyu ñu ñu doon topp yépp ci koor gi ci pirim alxuraan mi mhm. ak ci question yi doon ñëw waaye nag dañuy am ñoo xam ne danañ leen jagleel nuyoo bi mhm. mooy ñi ànd doon ci liggéey bi mhm. ndax ñun ngeen di gis ñuy wax waaye ñu nekk suñ gannaaw bari na trop loolu nag kiñ ciy njëkk a nuyu mooy ki nga xam ne am na xalaat taxawal groupe de média bu mag ci réew mi am pàcc gu mag gum jël jagleel ko wàllu lislaam di Youssou Ndour moom la ñuy njëkk a gërëm ndax bu ñuy mën a seetaan tey ci àddina fu nekk ci àddina grâce moom la kon ngërëm bi ci moom lañ koy jiital ak personnel bi koy jàppale yépp mhm. ci Birane ak directeur TFM Religion di Seydou mhm. léegi ñun nag ñi ñi àndat ñi ay jigéen wax dëgg yàlla jigéen ñu mën góor lañ mhm. ku mel ni aja ngay siré heure bu nekk mu ngi ci téléphone bi di ñu oo ndax tourné nga ndax image bi baax na fu mu toll rek mu ngi nekk ci ay activité mhm. pour émission yi mën a am guddeeg bëccëg ci diiru koor gi yëpp kon kooku jar na ñu gërëm ko di ko balu ak léeg-léeg sax mën naa am mhm. ñu waxante kàddu yoo xam ne waruñ ko ko wax waaye nag lépp ci liggéey la jar nañu gërëm ko balu ko ak ak ku mel ni euh, madame Guissé moom itam mu ngi ci récit bi mhm. waxtu ne émission yi du tardé émission bu nekk heure bi ñu defoon bande annonce bi bu jotee danañ gis ne danañ ko teg mu ngi ci récit bi moom liggéey liggéey bu rëy kon ku ànd ak ay jigéen ci koor ku dégg ba cëg ñu bàyyi seen kër tëj seen kër ñu nekk ay jigéen wax dëgg yàlla jar nañoo gërëm te lislaam lii la bëgg lislaam lii la xam jigéen dafay liggéey innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal xaanitina wal xaanitaati ci jamono yonent bi yonent bu daan dem xare Aïcha dana fa nekk mhm. sayyidatuna Fatima kon jigéen daal niñ jàngaan ci histoire ñu ciy góorgóorlu ñun am mhm. nañ ko fii si suñu kër gi muy soxna ngay sira ak madam Guissé mhm. yow mi itam maa ngi lay gërëm bu baax ci koor gi yow nga bàyyi sa lépp mhm. yaa ngi def sa stage di tournée yeneen heure buñ ñëwee waxtaanu koor jotee da nga ñëw participer si joxe laaj yi loo loo am am programme da ñëw ne ci laa bokk ci kër gi laa nekk kon loolu jar na ñu gërëm la ñu gërëm itam suñu gan gi di du suñ gan sax ci la fi la nekk li tax mhm. ma taamu ko invité ko ndaw la mhm. benn bi dañoo gis ne pirim alxuraan mi buñ koy tëj ci réew mi war na nañoo jël benn ci këru diine yi mhm. te bay ci sewewu tànk ndakaaru lañ nekk te ku ne xam ne ne fii ñu ne ci almadine nii Seydina Limaamulaay fii moo fi nekkoon moom moo ko sanc moom mu nekk ci kër gi kon bu ñuy jël koo xam ne dafa bokk ci laayan moom mii la ñuy jël loolu moo tax ñu jël ko bu beneenee mën nañoo jël keneen keneen beneen bi itam mhm. mu def waxtaan yu am solo ci koor gi keroog daf nañ ko fale ci cosaan ci festival salaan bi mhm. ci koor gi itam ñu koy gis ci pencum ramadan wax dëgg yàlla mu ngi def yu am solo comme niñ ko waxee ci moom na kër gi yëpp ñi fiy liggéey noonu lañ ko mën a mhm. waxee ci Aminata Diagne noonu lañ ko mën a waxee ci keneen ak keneen ñoom Mamour ku ci ne li ngay bay sa waar ci kër gi ñu ngi koy rafetlu ci émission yi am ci koor gi yëpp ñu mm-hmm. nuyu suñu caméraman Ibou Diouf ñu ngi jéggalu mm-hmm. allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mm-hmm. oustaz Ndongo waaw euh, kàddu ko euh, sant ak ngërëm jëme ko ci yéen macha xamal ni wax dëgg yàlla sunu fierté ngeen imaam jërëjëf ku ne xam na ni wax ak nit ñi metti na nga taxaw boobu ba léegi bàyyi sa yitte ak sa soxla dinoo leeralal sunu message moom mm-hmm. surtout loolu mm-hmm. message bu am solo bii nga xam ne moom la sunu borom wàcce ci yonente mu jox nu ko sallallahu alayhi wa sallam nga nu mm-hmm. koy leeralal yal na yàlla gën leeral say mbir ñu ngi lay ñaanal ci barke alxuraan yàlla na la yàlla teral say bëgg-bëgg ak say mbébét yëpp yàlla na ko yàlla defal ñu ngi kontaan lool di mhm. kontaan ci yow ci xam-xam bi. Mhm. ak dënn wu yaatu yi. mais ak dal geeg yar gi. tegginu yàlla na la yàlla fay. ndax wax dëgg yàlla lu fi masala tontu nga ko. Mhm. sigil nga nu sigil nga ñëpp yàlla la yàlla teral ci barke bay la. soxna Hajara jëf yow ci wéttal gi nga ànd ak saas ci taxawaay bi. jottali laajte yi moom mu leeral ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di sant waa TFM région yëpp di leen ñaanal comme ni mu ko waxee sunu kalimaate te waxtu bi jot na day gën a yaatu. Mhm. waaye ñu ngi baalu ak ñëpp ci korite gi. Mhm. ndax fii sunu kàddu mënul egg ak sunu jëmm. Mhm. télé bi mën na ko fa eggale. ñu ngi jaar ci télé bi di TFM région. di baalu ak ñépp ci weeru koor bi mm-hmm. di leen jéggalu di ñaan yàlla mu may ñu fekkewaat ko déwén mm-hmm. koor gii ñu yàlla bu mu nekk sunu mujjantalu koor macha allah yàlla bu mu nekk sunu mujjantalu koor ñu ngi jéggalu di tuub di baalu ak ci lu dëng ak lu li nga xam ne jubul du sunu coobare leeral leen ak yaatal diine lislaam gi mooy sunu moom mooy moom mënuñu fi tere toog macha allah kon nag euh, di leen jox dig daje incha allah rabbi xanaa déwén rek incha allah ci beneen waxtaanu koor ñu fekkee fekkee ko ñëpp jotaay gi allah macha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm suñu téléspectateurs yooyu nga xam ne ñooy seetaan TFM religion macha allah asalaamualeykum aleykum rahmatullah wa barakaatu. Ramadan Ramadan Ramadan.